nee na ci melokaan wi nga xam ni sëriñ Touba bëgg na ku bokk ci moom mel ni nee na muy Cheikh Ahmadou Rafahi Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal nee na mi nga xam ne taxawaayam ci yoon wi ak i kàddoom nee na ñépp a koy dégg ndax nee li muy wax de yàlla rek kay tax te bëggu ci itam lu neex nit bëggu ci itam lu naqari nit ak sëriñ am sëtu